Hey, what's up, my people, my community? Wally Balago Seck mi ngi ànd ak waa SM Global Sorted Limited fan lañ jëm Porsche Arena ay gars yi Wally ak waa Ramdan boo déggee Porsche Arena nag mooy Bercy mooy Bercy mooy salle bi gën a mag Arena moom foo ko dégg xamal ni mooy woote bu rëy bi. kon gars yi maa ngi leen di woo yéen waa Stuttgart na ngeen ñëw avance ñu ànd ceeg wali Balago Seck ak Warandal this is one day and the best day July 22 hey ma people ma community Gambian people African people come on come on please come on bésu happy la bésu kontaan la bésu sànc la waaye tamit bésu wane leneen la incha allah Toujours dans votre journal People à la présentation Seydina Tange Tandian Mousser. Serigne Saliou sur VIP People TV ginnaaw Lolo, amoon na fi coow boo de ni na ci affaire bateau engrais, bi nga xamante ni moo taxoon kii di propriétaires ou Nia di transitaires, u benn transitaire bi nekkoon foofu une cinquantaine d'années Ni foog ni coow loolu jeex na ni que am rebondissement lu jëm ci détournement bateau binga nga xamante bateau engrais, de 3,9 milliards de francs CFA nouvelle révélation la ñu génnewaat ci enquête yi ba tey suñu sukkandikoo muy nouveau rebondissement dans l'affaire du tournement du bateau d'engrais dont la valeur est estimée à 3 milliards 900 millions francs, un scandale dans lequel la directrice de Transcontinental Transit Nancy Nansignan, âgée de 50 ans, présumée responsable de la fraude, mouille beaucoup de personnes ginaaw lol nak la délégation judiciaire confie na li nga xamanteni moy mooy sûreté urbaine ñu def ben nouvelle révélation explosive bo nga xamanteni day mettre en cause ay opérateurs économiques yu bari yo xamanteni ñi ngi nekk ci dëkk bi ki leen cité nak du kenn ku dul directrice transcontinentale bi nga xamanteni moy mooy Ndeye na ñi gën ko xam ci Ndeye Nancy Nya. bi nga xamanteni mom mo hérité entreprise boobu nga xamanteni ni ju góor mom moko yoron suñu sukkandikoo toujours ci enquête bi nee en vérité autour de ce scandale gravité un groupe de redoutables escroc qui a fait des dégâts à Dakar, la liste des hommes impliqués dans ce scandale est longue. Les opérateurs économiques impliqués dans cette affaire de haut vol ont eu à acheter l'urée en usant des moyens frauduleux, indique le journal L'Observateur qui donne l'information. Des témoignages explosifs ont été faits par des proches d'Endaïna Signa. Ils sont revenu sur les transactions entre la dame et ses alcooliques. La sûreté va bientôt déposer son rapport d'enquête sur la table du juge. L'audition du fonds de la partie civile, Raoul Chandra, qui a qui est retourné dans son pays et prévenu le 26 juin prochain avant sa confrontation avec Ndeye Nansigna en tout cas muy Walbato bato engrais boobu nga xamante détourné woon nañ ko te ki ko moomoon indien boobu di Rahul Chandra ginnaaw bi ñu ko joxee directeur su euh, transcontinental transit di Ndeye Nansigna ginnaaw lol nag yoon tegoon Ndeye Nansigna loxo bi ñu dégloo témoins yoo xamante ni jóge woon nañu kii di Ndeye Nansigna xam ay opérateurs économiques yu bëri dañ ci impliqué Madame dañu dugg ci affaire engrais ba pare ndax Ndeye Nansigna frauduleusement ba pare jaay secret bi dem ak xaalis bi moo tax tey day Nancy Nia nekk ci ay guuta en tout cas nañ jàpp ne daal nañu dossier bi kii nga xamante ni sûreté urbaine te sûreté urbaine jamono ji dina pare loolu ñi ngi prévoir confrontation bi diggante Raoul ak Ndeye Nancy Nia le 26 juin bi ñu jëm incha allah en tout cas daal lépp loo xamante ni na ci coowal bato engrais boobu nga xamante ni Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou yàgg na leen ko indil fii ci journal People lii moo ci jot a bees muy rebondissement yoo xamante ni am na ci enquête bi parce que dañ ci cité yeneen opérateur économique yoo xamante ni ñu ngi ci biir dëkk bi ñoom ñëpp ñoo impliqué ci biir procédure boobu